liggéey bi rafet ba pare jaar na ci yoon yu mu war a jaar yoon génn ko noonu def ngeen un travail sélectif xel gis nañ liggéey bi ku gis liggéey bi rek xam ne lii loo leen miin la na ngeen ko muccee ay biñ ci waxtaanee discuter ci lever obstacle yi parce que am na ci ay pièges yu nekk ci biir parrainage bi ci mel ne commune bi fiche bi fiche bi fiche bi ngay a bokk commune ko nit ki lay parrainé tamit wax ngeen ko wax bu am solo. keneen bu fekkee parrainé nga keneen ba pare yëgal nañ ko parce que code électoral bi day gis article bi suuf. li code bi wax c'est assujetti à une amende de dix mille à cent mille ay et à une peine d'emprisonnement mois à un an maanaam boo paranee nit paranewaat nit ci sa coobare mën na la cee daan weeru kaso ba jëm ci atum kaso tegal la ci ay amende yu toll ci dix mille francs ba ci cent mille francs loolu la code wax ba tax na loolu bàyyi ngeen ci xel waxtaan ngeen ceeg nit ñi jaar ngeen ci fu ngeen war a jaar lii daal wanal na liggéey bu mu ci ay fii wanal na ne yéen a ngi ci terrain bi te liggéey bi tamit doon na ko yemal fii yéen ñu miin bureau de vote ñu miin si de vote yi ngeen fichier électoral ñu jàllee ci lii dinañ ci indi liggéey bi mu ci ay gën a kawe nii en daal fii ñu ci toll daal xel dal na ci dëgg yàlla lii daal ku gis xam ne expérience bu mat sëkk la waaw daye ju kawe la ñu ngi leen ciy jaajëfal di leen gën a ñaax ci liggéey bi asalaamaaleykum wa sëñ Saliou waxee on va on va euh, parce que temps bi dafa ñoo tënk trop trop euh, ñun ñoo nekk ay ndaw déglu sëñ Saliou gis xalifaam bi sëñ Ablaye li muy def ci dëkk bi ñun nekk ci dëkk bi yàlla may ñu tamit kàddu yàlla may ñu tamit nit ñi ci biir dëkk bi ñu bokk ci ndaw yi nga xam ne dañ mos toujours prôné pour le développement et le bien de la citoyenneté de Touba kon bu fekkente ne gis nañ koo xam ne mu ngi si yoon boobu mu womat ñu jëm nañ ci yoon boobu ñu am yaakaar yaakaar naa ni kenn duñu xaar parce que kuy wut fu mu fanaan ak kuy wut ku ku kuy wut fu ku ku ko tëjal bunt bi yaakaar naa seen seen buñ daje buñ waxtaanee jubóo loolu moo tax bi nu jëlee initiative ñu toog ñu waxtaan ak euh, sëñ Saliou à travers paa bi di suñu papa moom tam nga xam ne kum ci xamul ci ñun ñi wala ku ko xamul ci suñu génération bu waxtaanee sa papa xam na ko mm, mu convaincre ñu lu bëri ndaxte ci loolu la ñu nàmpatal ci loolu la ñu tàggat màgg ci ay tànkam ci côté politique ak yeneen ak yeneen yoo xam ne c'est c'est social ak loolu ñu ànd fas yéene ak sëñ sëñ fas yéene ànd ak liggéey la ak euh, président Ablaye Sylla ci mboolem loo xam ne si ni am na ko yaakaar ci ñun parrainage bi lii comme ni mu ko waxee comme il vient de dire c'est un travail de 72 heures mu doon aussi loo xamante ni base de données la boo xam base la boo xamante ni mën nga ko compter comme électorat ci loo xamante ni ci lu amul benn si sàkkan ñu fas yéene ànd ak moom aussi ci continuer ci liggéey ci comme ni ñu ko ko waxtaanee ni ñu ko waxtaanee man ak ñun ak moom ñu xam ne pare nañ engagé ko ci accompagné ko ci ci lépp loo xamante ni sox liggéey bi dina ko soxla ak lépp loo xamante ni dox na suñu diggante ak askan wi nga xamante ni moom lañ fi nekkal ñu fas yéene taxaw ci engagé wu ci loolu di ko jiital suñu président Abdou Lahad Lo nga xam ni moo nekk na nga xam ne moom force tranquille la du wax lu bëri mais jëfam moo tey jii mën naa laa ni jeune bu gën a populaire ci biir Touba boo koy wër mooy Abdou Lahad Lo Abdou Lahad wala Issa tey jii bu la neexee nga kii quiconque su la neex image yi mën nga ko yóbbu fu la neex booy wër jeunes yi ëpp assise wala yu ëpp compétence wala yu gën a ambitieux au niveau de Touba gën cee serré et qui ne font de la politique politicienne comme on a l'habitude de le faire. Euh, je l'ai dit à c'est une chance à saisir et c'est une c'est une chance à ne pas rater faut ñu bàyyi xel donc fas nañu yéene ànd ak Sine Saliou liggéeyal président Ablaye Sylla ba bu ñu jégee parrainage bi ñu jàll si leneen di ñaan yàlla yàlla defal ñu ci doole si ñoom laaj. maa ku ne sa tur ak sa sant di nuyu sama waa groupe balayage bi. Saaliw mu seet si ñu indil ñu ay bale indil nañu ñaar fukki bale ak juróom ak ñaar fukki tame ak juróom ñu ngi koy sant nag ci bale yeeg tame yi di sant group bi nga yónni li nga yónni li nga leen yónni ci ñun egsi na wax dëgg yàlla ndax tame yaa ngi nii bale yaa ngi nii ñu ngi lay sant nag di la remercier bu baax di la dooleel bu baax nag di sant tamit Abdoulaye Sylla tout d'abord dañ koy sant bu baax di ko gërëm ndax euh, nit wax na te te defut la mu wax jeudi bi passé la fi Baysal ñëw nekkal ko fi wax fi kàddu yi rafet liñ ko waxoon tamit mu indil ñu ko. li nga xam ne moo ñu fi indi ndax njëkkoon nañ fee ñëw avant donte boobu melut nii waaye jotoon nañoo wax ak soxna Ceka. ba am lu ñu fa joroon a tënk ci kër soxna Ndey Ndey nga xamante ni li waral daje bi lépp du leen lu jàppale ki nga xam ne mooy président Abdoulaye Sylla nga xam ne moom dafa nekk koo xam ne doomi dëkk bi la moom daanaka sax présenté ko yomb na ndax ay jëfam moom ku ko gisu tamit dégg nga ko Tuubaa gi yëpp foo dem na kat mooy Abdoulaye la ñu ne la kat mooy borom jëf ju rëy bañ na ko ba porte-parole xalif général des mourides li mu ko li mu koy bàkkee mooy ki jàkka joxe addee ci yoonu murid mooy monsieur Abdoulaye Sylla nga xam ne tuubaa gi gàmm gi weesu rek li nga xam ne yi nga xam ne def na ko ci Touba gi wala ci gàmm gi gisaguñ ko ko def ci gàmm loolu rek day nekk loo xamante ni maanaam lu leen di luñ leen di xamale rek pour ngeen gën a xam ki nga xamante ni moom lañ bëgg a jàppale ak solo si nga xamante ne am na ko li nga xam ne nag moo moo moo mooy dëgg dëgg mbir mi nag li nga xam moo ñu yëkkati mooy naka lañuy def ba remplir fichier bi nga xam ne mooy parrainage ndaxte kat dafa nekk mbër moo xam ne dafa bëgg a bokk ci élection yi waaye lii tax mu bokk mu bokk mooy lii parrainage munoo bokk te jàlloo parrainage parrainage tamit am yoo xamante ni maam da ciy am ndaxte mbootaay yu ñu dem li ñuy wax mooy parrainage bu jotee ku ñëw dañuy wax de parrainé leen ma ma jox leen nangam parrainé leen ma jox leen nangam kii nag dafa am différence ak ñooñ ndax ñoom nekkuñu ay politiciens ay entrepreneur lañ kon ñoom lépp lu ñuy def rek ci seen ñàkk bopp lañ koy defee te jam ndimbali gi nga xam ne ñu ngi koy def ci askan wi it seen ñàkk bopp la koo xamante nag da doon dimbali askan wi te soxlawul dara yaakaar naa bu soxlawee dara askan bi war nañ koo jàppale saa ñu séntu ci moom dara te moom nag dafa am programme yu yu yu amaa am solo pour pour ndaw ñi ndawum dëkk ndawi dëkk bi ak soxna yi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi di taaba taaba ngir amal seen bopp kon kooku yaakaar naa jàppale ko jàppale sa bopp la parrainage nag ndax candidat yi ngeen di dégg bari na waaye nag candidat bu nekk dafa am numéro te Abdoulaye la moo nekk numéro candidat numéro un képp koo xam ne indil na leen beneen fichier ne leen parrainé leen ci bu bokkul ak numéro un bi xam leen ne kooku da Abdoulaye Sylla parrainé parrainage bi tamit dafa am yeneen yoo xam ne tamit mu ngi ci yoo xam ne ay code la yoo xam ne bu ñu ci bàyyiwul xel mën nañoo indil erreur mën nañoo remplir ba pare dem déposer ñu rejeté ñu loolu njumte gi mooy yow nga ñëw parrainel ma ba pare keneen ñëwaat ne la parrainel ma nga jël sa sa kii parrainel sa 40 nga parrainé waatal ko muy sa teyu bakkan la wala nga def ko ne da nga ko rus loolu yëpp boo ko defee code code électoral bi am na ay daan yoo xam ne teg na ko ngir ki nga xam ne dafa parrainé ñaari yoon ci teyu bakkanam mu ne bu fekkee ne da ngaa parrainel nit ba pare keneen ñëw nga parrainé waatal ko bañ gis loolu yoon mën na laa tëj benn weeru kas alamaan la lu toll ci dix mille ba cent mille franc bu fekkee ne nag da nga koo def ci sa teyu bakkan bu fekkee koo xamante ne nag da ngaa voté ba pare da ngaa parrainé ba pare bu ñëwee ci yow dan la koo ñaan rek boo parrainé ba pare nga xamal ñu ne ñun pare man pare naa ba parrainé naa ba pare ñu jéggal la ko bu fekkee tamit dafa am keneen ko am yéene ne ko tamit ñu jéggal ko ñu jéggal ko nga dem parrainé ko ndax nga nekk kenn parrainé ñu dem parrainé waatal keneen yàq suñu liste boo fekkee ne ñun dañoo njëkk a dugal kooka ka nga parrainer bu mujjee dugal tamit dañ ngay yàqal listam te yaakaar naa àq la te lii nag bëgguñu see lor kenn ndax ñun it bëgguñu see loru kon bëgguñu si kenn loru si waaw leelu laal moo nekkoon loo xamante ni mooy dëgg-dëgg mbir mi li ci topp nag mooy li nga xam ne moo jëm ci wàllum parrainage bu fekkee ne def nga yii yëpp ba pare ba suñu mbër mi nekk candidat lépp loo xamante ni moom wax na leen dina ko def bu soobee yàlla loolu dañ koy def bu fekkee suñu borom dogal na ñu jot ci réew mi ndax dafa am loo xamante ni kat Sall mi ci koñ bi la dëkk te naa du fi digga loo xamante ni day génn di taseeg yéen di dëpp wala muy aji weere otoom ndax bëgg na kat buy dox fii di dox ci teewu bakkanam di doxee nu mu ko soobee kon moom mii du digga lu mu mënut waaw lépp loo xamante ni nag waxan waxante nañ ko ak yéen bu soobee yàlla loolu dañ koy def. waaw kon ñu ngi leen di tàllal loxo bu baax di wàccee foofu kàddu. yakar naa sëñ daaw da wax na lu ëpp ci li nga xam ne ñun waroon nañ kaa wax waaye nag ginnaaw ay ndaw lañ ba noppi dañuy diglu ndigal ki nga xam ne mooy suñu jëwriñ ci mbir mi di sëñ Saalu may ñu ndigal ñu wax donc kon dañuy ñëw rek wax leen yéen ñi nga xam ne yéen a dëkk nan ngeen war a comportement comportement yi nga xam ne yéen moom ngeen war a def ndax yaakaar naa ku daan gunge ay mbër ñuy daan. nga leen di gunge ñuy daan nga dem ba am mbër moo xam ne yéen a bokk fenn fu ngeen dëkk yaakaar naa kon mbër moom mu daan dina yomb lool te li tax muy daan nag yéen ñii yéen a ko war a def li tax muy daan yéen ñii dëkk Touba muy senes Touba muy jigéen ñi nga xam ne ñoo dëkk Touba maire mbootaay yi ñëpp ñoo war a booloo jàppale président Abdoulaye Sylla parce que tamit yaakaar naa bu ngeen ko jàppale wut ñeneen ñoo jóge feneen ñëw fii di leen imposer leneen te bu ngeen xoolee ba ñooña euh, jàll seeni parrainage wala ñu dem ba jër réew mi yaakaar naa da ngeen da ngeen bëgg lu bëree bëri te du ngeen ko am ginnaaw nag da ngeen am koo xam ne tey dafa nekk seen kanam nekk entrepreneur koo xam ne day dundee ñaqam waaye yoragul appareil de l'état de li muy def ci dëkk bi amul kenn koo xam mi ngi ko fiy def yaakaar naa kooku bu yoree appareil de l'état lu bëree bëri bëri bëri dina deñ waxuma tubaa de ci yeneen raison laay wax mais Touba moom yaakaar naa lépp day day day day jag ginnaaw yoragu ko te lu bëri mi ngi koy mi ngi koy jagal ndax bëri na ci mbedd Touba yi fooy jaar moom moo ko defar loolu len lu luñ ci werante parce que ñu ngi gis image yi di gis oto lu ñuy teg lu ñuy teg baaraam la donc kon yéen di ngeen a war a góorgóorlu bu baax xam ne di ngeen am koo xam ne tey dafa yombul ngeen bokk ak moom fu ngeen dëkk kon ñu ngi leen di tàllal suñu loxo ngeen jàppale président Abdoulaye la parce que yéen yéen a ko mën a yéen ko war a mën a fal parce que fii mooy fii mooy basam fii da kaa war a gagné à cent pour cent waxuñu ay quatre-vingt waxuñu ay cinquante cent pour cent lañ leen laaj fii parce que tamit euh, ginnaaw fii la fekk baax war nañ kaa mën a jàppale bu baax a baax a baax di wax ne daal li war na a leeral lépp sëñ daaw de leeral na ko ñun dañuy ñëw rek soññu leen pour que ngeen jël seen carte d'identité yi ngeen fexe dem bindu ci mbir mi loolu la rek carte d'identité yi ngeen bindu ci ci parrainage bi pour que suñ président bi mën a nekk candidat loolu bu ñu ko defee rek yaakaar naa lépp lu ñu bëgg ñun dinañ ko am di jéggalu bu baax nag. comme ni ma ko daan waxee rek ci laa koy waxe waat ndax koo xam ne mi ngi nii boo geesoo dem këram wëlbatiku jàkkaarloog moom yëmut ak ka jóge ca àll ba ñëw di la imposé loo xam ne lii boo ëllëgee mën nga ko bañ a mën nga koo bañ a gis. comme ni ko soxna Cekka waxee woon keroog rek dañ leen a nax naxati leen nax leen naxati leen waaye kii moom yaakaar naa ne war ngeen a am ci moom yaakaar ne du leen nax ndax mi ngi nii te tuxuwut demut fenn fi la juddoo fi la màggee fi la fekk baax te mën na ko wuti ci yeneen gox yi nag mi ngi koy amee ci yeneen gox yi nag waaye ama ko ci gox yeneen yi amee ko fii mu yaro juddoo fi moo gën a doon chance ci moom gën a doon chance ci ñun ndax kat bu yàlla defal ba mu ba mu li muy wate mu am ko ñun moom dinañ am mille chance moom wax dëgg yàlla ndax li muy def mi ngi koy def te ñëw yoru ci gouvernement bi defu dara alali boppam lay joxe li muy def di ko def ci dëkk bi di ko def ci yeneen dëkk yi gàmm gi jàll dong koñ bi ñetti nag joxe na ko fi waaw te ci coobaree boppam la ko joxe ci alali boppam la ko joxe ci li mu joxe ci àll bi ëpp ak leneen ak leneen ak leneen kon nag li wax ji mooy fexe leen seen identité yi ngeen jox ko ko wax ko li ngeen bëgg li mu ci man mu defal leen ko waaw du leen wax lu mënut bu ëllëgee mu jàkkaarloog yéen di rus yéen it bu ngeen ko tegee lu mënut it du ko def waaye lum man bu ngeen ko ko tegee dina ko def ngeen defal ko li ngeen man yéen it loolooy wax ji koo xam ne nag joxe nga sa identité feneen ba ñu bindal la ko mu ñu jéggal la nit ñi nag kenn ku ne ci sa teeg bakkan rek ci lañ lay wax ndax nit ñi yàq xel yi bari na mais nag yow bul xool ñi yàq xel yow xoolal li la doy nga xam ne lii doy na la nga def ko boo ko defee moom mii ñu ko defal am xelam dina dal yéen ñu ko defit seen am xel dina dal ñoo di nuyu bu baax di leen gërëm di leen ñaanal jàmm ndax jàppale ko sunu dooma dañ koo war a jàppale buñ ko jàppalee buñ ko jàppale wuti dañ koo war a jàppale ndax man mii day mbir yu mel nii kenn mësuma cee teg bët ma di ci dox mbaama di ci wax waaye nag kii day ñun ñooy moom looloo tax di nuyu soxna yi nga xam ne ñoom laa jiite di kontaan ci ñoom bu baax nag ndax fépp fu ma jëm rek ña nga fa waaye nit kontaan naa lool nag ci ñëw gi ma ñëw fekk si ma fii ma sama mbootaay gi ndax dëgg yàlla ban jàppee ba tey ànd ak man mosuñu maa changé kon yaakaar naa fu ma jëm foofu la ñuy jëm kon fii moom bu yeboo sa xel dal bu baax Baye Sall ndax fii say waajur rek fi nekk ñi say soxna lañ kon mënuñoo jëm fenn bàyyi la carte d'identité yi ma lay jox nii ba ma ko kiiyee kenn xamul kañ la waaye bu ma déggee ne yaa ngi ci koñ bi di wut rek dama ko ne ba kidim bi ma wooyee dama ko ne dama ko dellu naa ko seeni borom ndax bëgg la bëgg bëgg mu ñëw ci yow da ngay dàq kayul mu jëm ci àll nga yàq mu ñëw ci yow kon yow nan lay dala rek te xam ne fii mu na sa dal bu baax a baax góor ñi jigéen ñi fi ne incha allah dinaa fexe ba récupérer seen i ki jox leen ko kon nan yàlla defal te te jàppale la ba nga dem ca pale bi rek danañu am liñ bëgg incha allah asubilahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim amaana amaana sax waruma ci woon sànni kaddu ndaxte wax dëgg yàlla sama sama jëwrin yi muy sëñ Cheikh ak eh, sëñ Daouda Ndiaye wax nañ lépp lii rek dama xëy na damaa kontaan rek moo tax may moo ne xaaral ma sànni ci tuuti kàddu wax dëgg yàlla yaa cekk def nga lu kaay suñ jot wax dëgg yàlla bi ñuy commencé dem ci mbootaay ba léegi moom lii ñu gis fii moom ci ay carte d'identité yoo xam ne nii nit ñu volontaire bëgg a jàppale président Abdoulaye Sylla amaana raar na daal wax dëgg yàlla ba tax na volonté bii ak engagement bii ngeen jël bu soobee yàlla suñ borom doo leen am lenn lenn lu leen ciy décevoir bu soobee yàlla dana leen jàppale ba ngeen yëg ne jàppale nañ leen soobe soobee yàlla. ba tax na mbootaay gi yëg naa ni des na ba tax na bu leen ci bu leen ci découragé na message bi jàll fépp comme ni muy jàllee ci yeneen gox yi man bugguma benn gox raw leen ci mbir mi yëpp ñëpp a ngi ngi taxaw tem ngir jàppale président si la fii ba ba ba taw feex dem ba tindoo di ñëpp ngi taxaw di ñu woo chaque jour sama téléphone bii du fay. dañ may woo ay téléphone di ma woo ne ma ñëw leen dañu bëgg a jàppale président Abdoulaye la te yàlla rek tax loolu rek jëf ju kawe njort la fi mu toll nii moom wax dëgg yàlla lii moom taw feex yàlla suñu borom kese kese kese la wallahi ba tax na di leen gën a ñaax rek ci liggéey bi dina baax de incha allah rabbi am nañ ci yaqin te dégg nañ doléance yi dinañ ci taxaw bu baax a baax incha allah kontaan nañ ci lépp jërë ngeen jëf

وتائبي ويزيل الردى من الواسع الوهاب فهو النسير أميري لدى سيدي ومكسي وسيلتي خديما له